moom jawharatul kamal dafa am ay baat yu ci répété bu dee aynu répété na ci trois fois aynu rahmati aynul maarifi dégg nga ak aynul xaq aynul rahmati ñëw na aynul xaq ñëw na aynul maarif ñëw na muy ñetti sewde yoo xam ne benn sewde bu ci nekk yonentu la yonentu mooy aynul rahmati rabbani yonentu mooy aynul xaq yonentu mooy aynul maarif beneen bi ci des mooy boo xoolee dégg nga baatu nuuru muy firi leer ñëw na ci ñetti yoon muy ñetti leer yi nga xam ne mooy leerug yonent bi muy leerug nubuwa ak leerug wilaayatu ak leerug xilaafa yonent bi mooy nuuril akwaanil mutakawinati nuuril nuurika allaamici alladi madata bihi kawnaka alxaayita waaye ihaatati nuuril mutalsam ñetti leer yooyu yépp déngal yonentu yàlla muhammad la ndax moo fuddatu di wilaayatu wilaayatu fuddatu di xilaafa waaye lépp genn leer gi la sallallahu alayhi wa sallam niki noonu boo xoolee baatu xaqu xaqu ñëw na ci saahibil xaq aynil xaq talaatil xaq bil xaq muy ñeenti baati xaqu te boo demee ci ñiy dox sëyru ci aarifuuna billaay dañu naan alxaqaayiqu arbaa ñeenti xaqaayiq moo am léegi nga gis mu indi baatu xaqu mu répété ci biir jawhara ñeenti xaq ba pare baatu al alxaqaayiq nag ñëw ci benn yoon nga xam ne moo ëmb dégg nga eh, moo ëmb ñeenti xaqu yi waaye al mutaxaqiqatu ñëw ci benn yoon muy alxaqaayiqul mutaxaqiqa alxaqaiqu almutaxaqiqa xaq eh, ñeenti xaqiqa yi nga xam ne ñooy yi dëggu ñooy yi wér ñeenti xaqiqa yi nga xam ne ñoom rek a wér mu indi ñeenti xaqu ci biir jawharatul kamal lii yépp daal eh, dencu na ci biir eh, jawharatul kamal bii nga xam ne moom la ñuy jàng kon loolu mooy junj yi nga xam ne buggoon naa ko cee junj ci loo xam ne rek maanaa kii may nañu ko sallallahu alayhi nag wa ala alihi iyaahu boobu nga xam ne mooy timbre bi moom it benn salaatu ala nabi boppam la boo xam ne salaatu boo ci jël moo ko tëj nag sallallahu alayhi wa ala alihi salaatan tuarrifuna iyaahu nga gis ne euh, biir jawharatul kamal yàlla may na ci cheikh na ahmad tidiane fukki jàkkaarloo ak juróom benn fukki jàkkaarloo ak juróom benn yoo xam ne jàkkaarloo bu nekk dangay janoog péyub yàlla bi jëxrën mu la laajal sal tuuta laajal ñu jox la udu la laka laajal ñu nangul la léegi nag fukki jàkkaarloo yooyu ak juróom benn nga xam ne mahallul ijaabati la waaye nag dañ koo nëbbu ñi xam ñoo ko xam waaye daal bu doon toon li nga xam ne waxtaanu pénku la mën naa la ko won benn par benn fukk ak juróom benn jàkkaarloo ñu ngi ci biir jawharatul kamal benn jàkkaarloo bu ci nekk dégg nga péyub yàlla bi dafay ubbi ay buntam ne la loolaaj ñu jox la ko kan mooy Cheikh na Ahmed Tidiane ba nga xam ne fukki jàkkaarloo yoo juróom benn yëpp daje ci biir jawharatul kamal laajut yàlla lenn lu dul def ne ko salaatan sama borom maa ngi ñaan julli gi nga xam ne julli naa ko ci sa sang bi sa jàmbu tedd bii du sunu sang sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaan julli gi na nekk julli goo xam ne tuarrifuna da nga ñu xamal ñun cheikhu Tidiane man ak képp ku jokk ci man nga xamal ñu bihaa ci barke julli ji iyaahu yonentu bi moom soxlawul lenn lu xam yonentu yàlla muhammad mi nga xam ne xam ko mooy jëmmi xam yàlla kon cheikh la muy laaj ci jawharatul kamal di ko fa ñaan yàlla mooy xam yonentu yàlla muhammad salaatan tuarrifuna biha iyaahu loolu daal mooy li nga xam ne mooy junj yi dencu ci biir jawharatul kamal bu ko defee nag euh, pour ma mën a tëj waxtaan bi dinaa leen wax dara ci charte jawharatul kamal pour nit bu fekkente ne bëgg naa jëriñu ci dara dafay xam condition yi nga xam ne ci lay mën a jëriñoo bu boobaa nag boo demee ci risal ar risala shafiya fil fiqhi tariqa tijaaniya bu Mawlana Sidi Idris al-Iraaqi radiyallahu anhu wa nafaana bi barakaati wax na ne charte jawharatul kamal ñaari xaaj la dafa am charte yu koy wéral ak charte yu koy matal maanaam charte yoo xam ne bu amut boo ko jàngee du wér am charte yoo xam ne nag moom bu amee njàng mi euh, fekk wéroon na mais yool bi day gën a mat teggin yi day gën a mat charte yi koy wéral nag nee na juróom benn la charte bu njëkk bi mooy bala ngay jàng jawharatul kamal nanga ko mokkal mokkal gu wir nga xam ne doo ci damm benn baat bu boobaa loolu danga koy weccee ñaar fukki peri salaatul fatihi ndem mokkaloo ko euh, bu dee ci wirdu ci wasifa la bu ko defee bu ñaareel bi mooy taharatul xabasi sawban wa badanan wa makaanan mooy laat ci sobe su ne ci yaram wi ak bërëb bi ngay toog di ko jàng ak yaram wi nga xam ne mooy saw yaram bépp sobe bu ci taqoon nga dindi ko ba mu set bu fekkente ne <clears throat> loolu jafe na ci nit ki mu nekk koo xam ne dafa ame euh, daal xeeti sobe nekk na ci yaramam manta tàqalikook sobe yooyu bu boobaa du ko jàng du jàng jawharatul kamal bu ñetteel bi mooy mu nekk koo xam ne dafay jàpp njàppum ndox dafay laab laabu ndox képp koo xam ne farataam tiim la ku ngànt dab ba muy tiim bu boobaa du mën a jàng jawharatul kamal bu doon day wasifa daf koy weccee ñaar fukki per ci salaatul fatihi wala ñaar fukki per ak ñeent dégg wax ne nag ku jàppul ku tiim du ko jàng am na ñu naan ah kon xanaa dafa gën alxuraan déedéet loolu bokkuñu xëy bokkuñu gont ndax dafa am lu ñuy tuddee almasiya mooy jagle may may du firi gën nodda ngi nii am na may gu julli amul waaye firiwul gën ndax nodd iblis du ko fekke mukk waaye fooy julli iblis dana ñëw jax-jaxal la ci biir julli gi mais boo yëkkatee nodd di nodd iblis dafay daw kon ñi naan dañuy xanaa kon jawharatul kamal moo gën julli juróom moo gën alquran ndax alquran man ngaa tiim jàng ko julli man ngaa tiim jàng ko loolu du bokk ak moomu dafa am jagle beneen bi ci des mooy am na luñ koy mën a nirale ci bësu bésu maa ngi nii bu dee ci mazhabu imam malik tere nañu ku am ku tiim mu dem julli ji juma julli juma koo xam ne dafa tiim du dem julli ji juma day toog këram bu nit ñi jullee juma ba sëlmal mu daal di julli ñeenti rakkay tisbaaram comme dafa tiim mais bu tiimee du dem jumaa ja di tiim di julleeg mbooloo mi léegi nag la andi ba juma kenn du ko mën a tiimal danga koy jàppal rek waaye boo jàpp doo julli ji juma ci ngëri imaam Malik loolu moo indi jawharatul kamal bu fekkente ne maanaaha danga nga tiim doo ko jàng danga koy weccee leneen loo xam ne mooy salaatul fatih beneen bi ci des mooy ne jawharatul kamal dafa am secret bu ci nekk secret boobu nag dafa condition pour nit mën a am secret bi mooy nga laab laa ndox mais bu fekkente ne laaboo laa ndox doo mën a am secret bi waaye firiwul ne dañoo araamal ne kenn du jàng jawharatul kamal te jàppoo nekkul lu xaraam de waaye dañu ne secret bi ne ci jawaratul kamal képp koo xam ne laaboo laabug ndox bu dee tiim nga it doo am secret boobu lii mooy li tax ñu ne bu dee danga tiim doo jàng jawharatul kamal danga koy wecceeg salaatul fatihi li ma uxliq kon ñett yooyu ñooy maanaa waaye daal euh, weddi gis bokku ci suñ benn mbokku taalibe ku bari xam-xam dafa am benn waaye bu doon diingat lii mu ne ko léegi daal ñaari mbir moo fi ne boo nangoo nga ñëw ma may la wirdu tijaan nga sax ak man ñeent fukki fan doo tardé wasifa mbooloo euh, di jàpp di jàng jawharatul kamal ci njàpp ci biir ñeent fukki fan yi balaa mat danaa ñaan yàlla mu won la yonent bi nga gis ko yaqazata nga nga gis ko ci nelaw nga xam ne lii dëgg la bu loolu amut nag nga saxal ñeent fukki fan ngay ñëw ci géewub wasifa di wasifaak nit ñi ci mbooloo te doo jàpp ngay jàng jawharatul kamal jëhran comme nit ñi nga seet ba xam ndax bu ñeen fukki fan yi faatoo wala balaa mat doo dee dem àllaaxira léegi waa ji nanguwu ci benn mu ne ko kon yow bëggoolu leer boo ñëwoon def li ma wax danaa la woon yonent bi bu fekkente ne nag nangu ko nga essayé ba xam ndax doo faatu wala déet kon yooyu ay ay ay mbir la yoo xam ne daal jarut sax di diingat nit yàlla yi ci yu demee noonu ndax ibnu ataillahi def na laa yutaradu ala cheikhi fii ma yafaluhu bi idnin an illah mu ne kenn warta dingat ab sëriñ ci loo xam ne def na ko ci ndigal lu bàyyikoo ci yàlla te cheikhana tijaani werante amul ne salaatu bi yonentu moo ko ko jox comme ni mu ko waxee te gëm nañu loolu te nee na charte yi ci nekk yonentu moo nekkoon nii lañ koy defe kon ku gëm cheikh tijaani gëm ne yonentoo ko jox rek yow doodoo ci sikki sàkka boo diingatee itam li ngay diingat nekkatul cheikh ngay diingat mais yonentu bi ngay diingat kon te imaamu Shaaraani waxoon na ne inna al abda ida daxala tariqa al qawmi wa tabaxara fihi aataahu llahu azza wa jalla hunaka quwat al istinbaat nadira al ahkaami al ilahiya zahira ala xaddin sawain fa yastanbitu fi tariqi waajibatin wa mandubatin wa makruhatin wa xilaafa al awla nee na jaam bi bu duggee ci yoonu gaay yàlla yi mooy yoonu suuf suufiyanke yi bu demee ba géeju ci yàlla dana ko jox doole joo xam ne dana man di génne di ballal dégg lu loo xam ne day mel ni àtte yi sharia yu feeñ yi comme ni nga xam ne mujtahiduna yi ñoom imam malik ak ñoom shafi ak abu hanifa dañuy dem ba yàgg naan lii waajib la lii mandub la lii makruh la moom it day dem banaan lii waajib la lii mandub la lii makruh la fekk yooyu dañ koo def pour protéger ko mbir mi ñuy def tëralal ko ay condition pour ku bëgg a jëriñu ñu ne la jaaral fii loolu rek moo indi charte yu demee nii waaye jàpp naa ne daal euh, charte bi ku gëm yàlla te bëgg lu baax warulaa naqari mbir a ngi nii bala nga koy def jàppal ak njàpp li njëriñ li njëriñ li ci ne ak mbaax gi mu baax bu dul dara sax cet gi ci nekk ak sell gi ne ci njàpp ku la ne nangam a ngi nii bala nga koy def jàppal te li ngay def mooy lan ñaan yàlla ak julli ci yonentu yàlla muhammad mooy la ñaan gii nag bala nga koo ñaan ak julli gii bala nga koo julli ci yonent bi nanga jàpp waay waay loolu ku ko diingat dangaa baaxut dangaa bëggul lu baax dangaa sellul mais képp ku sell ku la digal njàpp dégg nga digal la julli ci yonent bi sallallahu alayhi danga sallam ko war a sant gërëm te gis nañu ñoo xam ne ñoom seen secret yi ñu yor dañu lay naan boo demee ci ñoom ba bëgg bëgg jël secret bi dañu lay naan jàppeel jàppeel ak saw wala julli goo xam ne bala nga koy julli dangay jàpp ba sa njàppuli wér ñu ne la tojal tojal njàppuli nga toj njàppuli ba pare door a